nekk nañ ci dëkk bi juddoo fi ba toll ni ma toll nii dañ koy dégg rek mosuñ koo gis ca lañ koy dégg ñii nee nañu passis kankuran la xam wallahi tey mu woon leen ne xaw ma kankuran alquranul karim la xam alquranul karim lay jàngale këram ay ndongom ñoo fi njëkk tey wàcc alquranul karim rek ci ni programme bi doxee ci journée bi incha allah nga xam ne alquran ju saf sàpp lañ fi soxla tey bu ko defee lu jiitu ñuy dugg ci alquran jooja dañu leen di présenter li journée bi doxe incha allah ndem heure bi ñu joxante woon weesu na ay simili yu néew waaye loola du te lépp loo xam ne naaloon nañ ko rek incha allah danañ ko def danañu tijjee jotaay bi ak kaddi alquranul karim bu neexee borom bi subhanahu wa ki ñu koy defal nekk doom ci kër gi nekk jàmbaar nekk ndaw loo xam ne ñun waa Mbuur tey dañ koy tiitaroo ndax effort yi mu def ngir mën a nekk symbole mën a nekk ku ñépp di dégg fii ci Mbuur ak li ko wër muy sunu rakk Mouhamadul Amin Ciss danañu tijjil jotaay bi bu ñu ca noppee ñu daldi soobu nag ci lépp lu jëm ci tatagal suñuy gan ak présenté kilifa yi nga xamante ne ñoo fi teew buñ ca noppee ñu daldi soobu nag ci alquran ji ñu wax tey ni dina sa sàpp ci bës bi ñu jox ñenn ci jàngikatu alquranul karim yi ñu def ci ay présent ay prestation yu am solo yu neex lool buñ ca noppee da ngeen gis seetaan ay spectacle yoo leen musula gis tey incha allah ay spectacle coranique nga xam ne néew ne lu ngeen koy gis buñ ca noppee nga xam ne day tolloog waxtu julli di jot ñu daldi dugg ci kër yi xéewlu julli xéewlu julli bu ñu xéewloo julli quinze heures pile bëgg nañu baas bi ñépp ñëwaat buñ ca paree ñu daldi soobuwaat ci beneen programme boo xam ne programme la bu rëy ci biir programme bi muy li ñëpp di xaar muy al ax Cheikh Omarul Foutiou Ciss war fee ñëw def fi muhaadara bu bu waa Mbour yëpp di xaar bu adduna bi yëpp di xaar buñ ca noppee ñu dellowaat buum ca mboy mboy ga joxaat waa jamiyata ahlul quran ñu defaat nañu defoon rek ay spectacle jàng alquranul karim buñ ca noppee danañu def ay kàddu cant ak remise ay diplôme d'honneur ay cadeau ay kàddu safwante tombeek timis gi jot ñu ñaanalante ba déwén incha allah lii lañu naal di ñaan borom bi subhanahu mu mottalil ñu incha allah al akh Cheikh Ahmad tafaddal quran boobu yàlla jox yonent bi sallallahu alayhi mu gën ci xeet yi boo ko doon xool di jàngat ay dundam commencement ba fin lépp alquranul karim la nekk woon alquran boo xam ni matériel la muy portable yi tey kaamil bi yëpp mi ngi ci biir ay application yu dul jeex waaye amul lenn lum ci traduire ci wàllu jëf ci wàllu liggéey ànd ak yéen ci bisub alxuraan bu rëy bii nga xam ne macha allah bis la boo xam ne bisub jullit yëpp la waaye nekk bis bu am solo nekk bis boo xam ne xol yëpp dañuy rootaat xol yëpp dañuy dundaat ci li nga xam ne mooy téereb yàlla bi di alxuraan ndax yàlla moo ni eh, ñi nga xam ne wàcce naa ci ñoom alxuraan bi ñu di ko jàng di ko jëfee nee na ñi ngi nekk ci commerce boo xam ne macha allah commerce bu bari bénéfice la te ahlul quran hum ahlullahi wa qasa ñooñu alquran ñooy ñooñu yàlla te yàlla ne man maa leen di jagoo kon tey saxit ñi nga ànd ak yow fii macha allah ci bis bu màgg bi bis bu rëy bi di bisub mbégte waaye di bu bisub alquran xam nga ni macha allah euh, julit ñi moom alquran rek la ñu bëgg te gis nga xale yi macha allah concours bi ñu def mu nekk lu am solo loo xam ne nag euh, innovation la ci façon bi nga xam ne moom la xale yi di jàngee alxuraan gis nga musaabaxa bi macha allah doo xam sax kan moo dàqale alxuraan doo xam kan moo dàq ak taj tajwit yi loolu nag avancement bu rëy rëy la mu nekk loo xam ne ñu koy sant yàlla bu baax a baax a baax ci alxuraan jéego yi nga xam ne def ndaw ñi nag di ko xëccoo ci seen biir mu nekk loo xam ne gën nañoo bégloo saa it macha allah di kontaan yow tam ci sa liggéey bu rëy bi nga xam ne yaa ngi koy def yàlla na yàlla fayal ñu la. fa ne ko lii lañ lay teralee buñ la joxoon un million du la doy waaye buñ lay joxee kitaaballahi da nga bëgg allahu akbar docteur allahu akbar yal na yàlla fay leen yal na yàlla fay la yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla yokku taxawaay bi suñu diggante yal na ko yàlla yokk fa wa rabbil kaaba kontaan nañu yaa ñu ko jiw ñu ngi nii di la ko fay te yéene nag yeneen yow incha allah sëñ bi kontaan na lool yal na yàlla kontaan bu ko defee rek incha allah bu ko defee ñu yéeme ko amiin ya rabbal alamin وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم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 اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم استرنا بسترك جميلا اللهم استرنا بسترك جميلا اللهم استرنا بسترك جميلا اللهم افتح لنا كل غاب كنت فاتحه لسانك اللهم افتح لنا كل غاب كنت فاتحه لسانك اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أوفق الخاتم وسبق بما سبق نصير لحق الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره وعلى آله حق قدره وعلى آله وأولاده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم القاسم والسلام سلام سلام سلام سلام على المرسلين الحمد لله يا سيدي ما شاء الله